ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci nabi sallallahu alayhi wa ñu ngi bëgg lool lool ci li nga xamee ne fii ci seen kër maam di suñu kër maam El Hadj Malick jamono dox na ba tey bii organisation wax dëgg yàlla ñu rafetlu ko lool ci wàll wu nekk rafetlu ko ci fii mu xewee waa rafetlu ko tam ni ngeen ko tase ci àddina ak li ko jiitu ndax fan yii yëpp Sénégal yëpp seede nañu ne taxawaay bi ngeen taxaw di leeral nit ñi ñi xamoon ak ñi xamul di fàttali ñi xamul ñi xamoon. jëm ci mbind maam Maodo yëpp mu jëmale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gën gi mbindeef wax dëgg yàlla kontaan nañ ci yéen tamit seen organisation Jeunes Tidianes yi taxaw ngeen xeetu taxawaay boo xam ne xale yëpp léegi xam nañu ne jàng ak jàng lislaam ak sa tarixa amul njàng mu ko gën ak loo mën a def kon tey jii ñu ngi bëgg bu baax a baax te it léegi rek sama xel ngi dem ci liggéey bi ngeen liggéey ni ñu dalale gan yi ñu dëkk bi tëdd ni ngeen organiser loolu yëpp dafay nekk lay woo xam ne lépp loo xam ne war nañ ko tëral ci organisation ak méthode mu ngi ci biir islam yéen ngeen dox ko ci biir tarixa bi ñu ngi rafet lu baax i tamit li nga xam ne télévision yi couvrir nañu li ngeen organisé depuis une semaine ci wàllu njàngale wàllu fàttali wàllu organisé ak i tamit dugal xale yi ci mbir mi man maa ngi rafet loolu yëpp di kontaan bu baax a baax di félicité di ñaanal xalif xalifa bi suñu papa si Ahmed Tidiane Al Maktoum di ñaanal euh, góor gi Abdoul Aziz Amine ak waa kër gi yëpp yàlla yàggal leen fi wéral leen fii ñu am yaakaar lu bari ci ñoom ci wàllu àddina ak wàllu àllaaxira yéen tam ñu ñaan yàlla gudd fan ak wér taxawaay bi ngeen taxaw ci tariix bi taxaw ko ci lislaam yàlla na yàlla ful ko allahumma salli ala sayyidina Muhammad xaatimi nabiyina imam rusalin